yu gàtt rek du ma ko mën ay ca bismillah <laughs> vas-y balaa ma lay boolee commissaire yow yaa siy des yaa siy des non les interventions c'est très très c'est très brillantes boo xoolee commissaire lay muy développé nii à la limite tu es très fier d'avoir vraiment des cadres pour ce domaine yi ak suñu xarit le sociologue mais man suma problème peut-être mooy que dafa am loo xamante ne ci man mooy expliquer lépp lu am booy ba boo xoolee le rapport du suñu rapport ñun sénégalais avec suñu propre environnement dama lay jox benn affaire boo xamante ne kii junj na ko sànq jaxate euh, suñu professeur jaxate mooy suñu place yi suñu xool place de l'indépendance amoo foo jëm amatoo r de jeu amatoo dara sa veut dire même de ton enfance ba ba ngay mag amul amoon cinéma amoo dara amoo loo xamante ne moom moo lay may ngay dunde yenn dunde yi parce que quand am na heure jàng am na heure loisir boo paree jàng da ngay def loisir bu njëkk ba amoon na UAS yi wala amoon na amoon na taux d'occupation boo xamante ne baa jàng la baa loisir nga ñoo nekk mag da ngay liggéey cadde loisir boo xoolee quel est le rapport boo xamante ni lañ am ñun par exemple ak suñu environnement exemple bu gën a yomb j'envoie amay laa rek ñun ñëpp a dem cette place de l'indépendance ce que c'est devenu ak lu mu meloon mm-hmm. sénégalais moo ko def ñu xool benn rapport boo xamante ne rek dañuy may rek ñu xam suñu bopp yan rapport lu ñu yore ak suñuy fas yu nekk si charrette yi ñu xoolee fas yi comme on les traite nga xool mu ne nit a koy def et la grandeur d'un pays se mesure à la capacité de ses citoyens lu ñuy traiter seen animaux fa ngay xam kan kan beneen affaire bi mooy suñu indiscipline notoire qu'est-ce qui fait que tey pour man dañu feebar commissaire am na lu mu wax sànq je pense que dugguñu si biir au fond dafa dem benn terme bu am solo promiscuité <coughs> promiscuité foo gis promiscuité mooy indi viol xale bi fa lay découvrir moom mooy kan xale bu góor bi fa lay xam moom mooy kan moom lay xam ci biir loo xamante ni professeur mun na si ñëwaat et je pense que c'est très important mooy les pulsions le refoulement lu muy téye lu mu dul lu muy extérioriser lu muy intérioriser te yow xamoo si dara parce que nous sommes 30 à 40 si benn kër boo xamante ne ça fait moins de 150 pour cent on habite dans pour cent donc autant pour moi 80 mètres carrés war a nekk 30 40 mu am euh, juróom ñu bokk ndey ak baay ak yu demee noonu on est dans sa veut dire on toutes les conditions sont réunies sur 0,3 kilomètre carré kii lu mu tudd 0,3 pour cent de notre kii Dakar maanaam pour que violence boobu am commissaire expliqué na ko quand tu sors un peu plus loin soo demee problème mu terre la ak euh, convoitise léegi nit ki lan mooy lan moo koy may mu xam là où il doit aller ak les limites ses limites pour man dootul seulement affaire de sécurité pour man au-delà de ça il faut que ñu toog ñu waxtaan xoolaat suñu société qu'est-ce qui fait que cette société sénégalais yi agressif tey qu'est-ce qui fait que un deux dóor naa la gaañ la après nit ñi ñëw intercéder pour ñu baal pourtant mun naa la bañ a dóor mun nañ bañ on peut ne pas être d'accord mais bañ la bañ la dóor pourquoi lève t la main pourquoi viole-t-on lan moo tax nit ki taxaw comme l'a dit la fois Malal ici wax ko choqué ñëpp mais dëgg mooy dëgg comment quelqu'un ne peut pas arrive à un certain âge mu am yenn problème yi je pense que dafa am loo xamante ne c'est de la psychologie dafay relever de la psychologie beaucoup plus que de la force de la police parce que foo gis police foo wax police police boo ko dans l'histoire lan mooy police ak loolu yëpp mais police il n'était pas armé avant dans le monde la la police c'est la c'est une cité comme me, rappelle un grand à moi Racine Senghor c'est de la courtoisie c'est c'est de la civilité police mooy cité politéa moo doon administration mooy loolu yëpp loolu yëpp xam nañ fu mu jógee quand on parle des gendarmes ce sont des gens armés dañuy génn ci dëkk bi bu ñu génnee ci bërëb maanaam bu ñu génnee ci Dakar ci ngay dajee ak gendarme yi mm-hmm. parce que àll la te àll xamoo loo fay daj mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ba nga xamante ne tey on est au point boo nga xamante ne tous les jours dafa am loo xamante ne moom la ñuy raconter dans ce pays là je pense que il fallait il comme dit le commissaire léegi am na ça ne relève plus seulement de de de, de la sécurité pour moi il y a une psychanalyse à faire dans notre société Charles nee na psychanalyse de la société Pape Djibril te ñu toll ci fu ñu war a psychanalyser société bi wala. man en fait lëppal ko. voilà euh, Papis euh, merci beaucoup nee na ndëpp ndëpp mooy wolof bi. jërëjëf commissaire li mu dëkk Fissel lu tax ma défendre ko mais tey moom tey ñoom lay solal robu avocat. ay ci bismillah <laughs> en réalité je pense que ni mu posé problématique bi am na solo et que ñoom dañuy exécuter rek politique boo xam dañ ko décliner fii ci kaw. mooy tey jii sunu politique sécuritaire lan la lan la sunu ban vision lañ ci am. est-ce que prévision am na ci wala ndax dañuy gérer rek yoo xamante ni moom mooy li teew ak euh, évolution bi mu am est-ce que projeté wu nañ tamit pour prendre en compte yenn mbir yi nga xamante ni dinañu arrivé ci suñ société comme évolution parce que tey jii ñoo ngi wax richesse yi fi feeñ ñoo ngi wax découverte yeeg yooyu yëpp c'est-à-dire que dafay imposé aussi ñu adapté wu par rapport ak ay besoins sécuritaires yoo xamante ni xëy na amuñu ko woon il y a dix actuellement forcément dinañ ko am. Mm-hmm. loolu euh, loolu bu njëkk bi loolu moo tax ma ne euh, la police et la gendarmerie dañuy exécuter une politique boo xamante ni dañ dañ ko dañ ko xalaat ci benn niveau bu gën a stratégique xëy na ñoom bu ñëwee à leur niveau dinañ ko bonifier xool faisabilité bi et tout donc loolu su ma ko waxee rek dugal naa moyen dugal naa budget dugal naa yooyu yëpp nga xamante ni moom moo leen di permettre ñu def seen liggéey convenablement loolu xam naa ne commissaire dina ci dellu siwaat mhm. effectivement il a un discours boo xamante ni c'est c'est très diplomatique mooy que l'État est en train de faire des efforts pour man phrase boobu mooy <laughs> escroquerie bi gën a mag parce que souvent <laughs> foofu la ñuy dëxëj lépp l'État est en train de faire des efforts <laughs> mais en réalité en réalité souvent même effort yi euh, man nañ ko fésal nii mais c' est bien nga nga nga fournir ay matériel ak yooyu parce que ñun tamit malheureusement société bi ñu nekk euh, dañu bëgg loolu loo xamante ni dañ koy gis mais ki nga xamante ni tamit moom moo war a doxal loolu muy agent bi nga xamante ni moom moo nekk ci tali bi muy ki nga xamante ni moom mooy confronter la réalité kooku aussi il faut nga mettre ko dans des moyens yoo xam dina ko permettre mu def liggéeyam et je suis désolé il y énormément d'efforts à faire dans ce sens-là que lu bare bari war nañ ko def euh, ci euh, prise en charge des ressources humaines bi hmm. euh, bu ñuy jalonné yenn saa yenn heures nga romb leen à un certain niveau surtout bu fekkee yaa ngi génn Dakar ci autoroute bi sa yaram day daw ñu taxaw di xaar parce que am na kilifa gu war a génn wala am na kilifa gu war a dugg ñu taxaw di xaar donc il travaille dans des conditions difficiles te homme de tenue yëpp la y compris les hmm. sapeurs pompiers y compris la police y compris la gendarmerie l'armée y compris l'armée hmm. a énormément d'efforts à faire loolu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy wàllu cantonnement bi foofu tamit y a beaucoup d'efforts à nga dugg ci ay camp fii Dakar tu as l'impression que en réalité li dañ ko waroon rakkatiwaat ko parce que c'est d'une autre époque yaa ngi dégg boo demee voilà fu ci bari ñoom ñi ñi seetaan kilifa yi xam nañ ne voilà y a beaucoup d'efforts dans ce sens-là donc len loolu mooy côté état ak euh, côté kii bi beneen bi professeur Djibi Diakhaté wax na ko mooy culture dénonciation c'est-à-dire loolu responsabilité bi nga xamante ni population bi am na ko par rapport ak police am loolu tamit du nekk loo xamante ni dafay xëy rek teew c'est-à-dire que liggéey la boo xamante ni il faut que ñu dugal ko dans une dynamique boo xam dañ koy évaluer tout le temps ba xool fan lañ ci toll et la meilleure réponse pour man président Macky Sall daf ko trouver bi mu bi mu gagné bi mu gagné élection yi en 2012 mooy mu indi une police de proximité mais police de proximité boobu lan la devenir rapidement désaxé complètement ñu utiliser ko à d'autres fins yoo xamante ni alors que ñoom ci seen bopp sentiroon nañ le besoin de sécuriser les les les les populations de plus près mais police de proximité boobu et loolu question bu ma la jox la est-ce que tey jii waruñu dem encore vers cette police de proximité boobu waxuma ay wala wala sax une police municipale. Hmm. boo xamante ni aussi dañ koy jox ay moyens au niveau parce que ñoom ñooy gën a mën a comprendre. kii bon na fi ay temps donc tu ñu indiwaat mais de façon vraiment mu nekk hmm. une police municipale boo xamante ni avec des moyens maintenant quand tu prends aujourd'hui le budget des collectivités locales ça fait pas hmm. du budget général. loolu tamit pour nga mën ci am loolu tamit c'est c'est c'est beneen difficulté la leneen li aussi mooy loolu ñoom liggéey ñoom professeur Djibi Diakhaté la mooy. liggéey bi nga xamante ni war nañ ko def tey pour aider davantage à trouver de solution mooy typologie bi cartographie bi d'abord. Hmm. typologie bi ensuite. gis yàlla xam na ne bu ñu defee liggéey boobu dinañ comprendre pourquoi mu am niveau de violence boobu fan la gën a amee. ak ban xeet lay nekk. Hmm. waaw léegi nag du nekkuma di wuutal ay circonstances atténuantes les parents mais dans certaines situation c'est difficile nga yar sa doom aussi bu fekkee ne école bi nga yaakaaroon pour mu jouer un parce que école ngay yaakaar l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison bu fekkee école ba nga yaakaaroon école boobu mënatu ko jox li nga xamante ni moom la ko waroon a jox euh, yenn saa yi sax mbedd mi sax daan na la dimbali parce que à un moment donné aussi il ay ay consensus yoo xamante ni amoon nañ ko ba nga xamante ni euh, yu bari mbedd mi doon na ci dimbali loolu tamit faillir mais il est évident que ne euh, quand tu cherches à joindre les deux bouts pour nga nekk fa tamit di talaat yar c'est extrêmement difficile mm-hmm. Mm-hmm. donc loolu aussi dafay revenir sur la question de la répartition des ressources mm-hmm. parce que accaparement bi bu continuer di am aussi ñu am sentiment que ni ñii dañoo jël li ñëpp bokk mais loolu tamit dafay am te loolu damay interpeller aussi le sociologue c'est-à-dire mooy mooy beneen bi mooy tamit euh, les type de violence waaw mooy mooy une violence boo xamante ni aussi bu fekkee ne damaa jàpp ne man li ba ci biir kër gi man maay papa ji ma jël lépp téye ko mais bu ma moytuwul sama doom rebelle wu sama kaw alors euh, professeur ak commissaire dinañ ci tontu am na interrogation yu bëri yoo xam ni yéena ko moom police de proximité bi waaye it euh, typologie bi